le lion de Guédiawaye ndaysaan Balla yegsi na open press bi dina yëngu Balla Gaye 2 yegsi na ndaysaan le lion de Guédiawaye ngi noonu ndaysaan ma ngay wàcc ma ngay dugg ndànk rek ndànk ndànk rek Balla Gaye ngi noonu ndaysaan wàcc si na ndaysaan barki démb moo njaay la am stade fële ci ndam lu rëy ndaysaan ma nga noonu ndaysaan ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Balla Gaye dëgg ngi noonu ndaysaan may leen ko <laughs> déggal Ibrahima taxawal noonu ndaysaan ma nga noonu ndeysaan ñu ngi loolu ndeysaan ndeysaan ma nga am na lu muy waxanteeg Fils de Balla ndeysaan lii dafa baax ci làmb boo amee say frère ñuy bëre nga am ndam ak nga am defet ñëwal soutenir leen Balla Gaye ba mu dugg see ci open press bi ngay xam ni ah cin bokkul safin open press bi ngay xam ni Balla Gaye 2 dugg si na ndaysaan ma nga noonu moog fils de Balla ndaysaan mu ngi am na lu ñuy wax ñoom ñaar Balla Gaye 2 noonu ndeysaan nuy naa alquraanu karim amul yàlla bu ma jariñ Balla Gaye Balla waa sikil wax man Balla Gaye soko tib doo ma génneel kii Balla nuy naa derbi derby Parcelles ak Pikine da Balla Balla Gaye Balla Gaye nangu dawal Thank you.